14 janvier 2020, nous les élèves du lycée Elas Malxi, nous avons pris l'entière responsabilité de faire une marche pour une, bonne cause. Et la cause est, la cause est, c'est de rechercher notre camarade de classe, notre sœur qui avait disparu il y a presque maintenant 10 jours. Elle a, disparu, nous n'avons aucune information d'elle. Son nom c'est Binta Diallo, une vingtaine d'années. Elle fait aussi la terminale S, un élève qui doit passer le bac d'ici quelques mois. Et aussi, nous, pouvons nous asseoir les mains croisées sans pour autant réagir pour faire une marche. Et la marche, au niveau du lycée mal ici. Et nous nous sommes fait entendre. Maintenant, nos camarades savent ce qui se passe. Ils sont au courant de la disparition de la fille. Maintenant, je fais, passer un message fort à tout le peuple sénégalais. S'ils voient notre soeur et camarade Binte Diallo, et nous allons mettre sa photo sur les sites internet, s'il la retrouve ou bien qu'il l'aperçoive quelque part, qu'il essaie d'appeler la police pour qu'on puisse la joindre et l'amener dans sa famille parce que sa famille a vraiment besoin de ce soutien mom terminal lay def ren Nous à quelques mois du bac Nous Nous Binta sommes d'accord mais nous xam lan nous xew ñun ñun suñu camarade la suñu sœur la suñu rak la suñu mag la ñun Nous ko bokk ñun Nous nek ci même classe di waxtaan di pas mom et tout mënoo xey xey ci lu mu sommes ba xam Nous ngi ci pas wala nekku ñun euh, li ñu message bii nii dañoo bëgg Sénégal ñëpp xam ko ñëpp yëg ko mun mënunoo toog am ñoo xamante ni xamuñu sax ñu nekk ci lycée bi sax xamuñu sax am na ku réer am na élève bu réer. mën na dal ku nekk ku nekk mun na ko dal ñun ñëpp ñoo nii ci lycée bi lañ nekk xamuñu ëllëg fu ñuy kon bëgg nañ même su fekkoon ñun la au moins ñun ñu yëkkati suñu benn lox baaraam sax dem ma def dara. parce que mun nañ toog dara dal ko war a dara ñu ñu ñëw beneen jour di lamenté wu naan lu tax defuñu dara pour moom au moins ça pour nit ñi xam. dinañ def suñu ay affiche génn incha allah wane ko ñi ñi gis kan mooy Binta Binta Diallo ku ko gis mu woote wala mu def nu signe ñun nag ñu ngi bëgg autorités yi euh, dañoo bëgg rek pour nu gën a gaaw a seen affaire parce que moom bag la war a def te ñoo ngi perdre ay cours moo ngi war a def compo incha allah semaine prochaine te lii nii du baax ci moom du baax ci ñun. ñaaw nañ ñort nii xalaat lu bon wala leneen lan moo xew mën na nekk foo xamante ni ñaanu ma ko yàlla mooy loolu te ñëpp xëy di réer. te loolu baaxul au moins ñu jéem a